Mama Khadija bay Masajono Masajono Masajono Mama Khadija bay Masajono Masajono Masajono Kan naaj bu bi yang ngi yëngu sa njaay di yaakaar sa borom yow soo ko bi yang ngi sa njaay jubal sa palasbo bi yang yon ne matigiti bu bi yaa ngi yëngu sa njaay di sa borom yow soo xëyee naaj bi yaa ngi yëngu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bi ni woro no siman sonye we mane basma Mamli woro no siman sonye we mane basma Sagalui Masa jenop yore wau kani jabai Masa jono Masa jono Masa jono yore wau kani jabai Masa jono Masa jono mà sẽ cho ngốc yêu đêm mau ta đi dơ bay mà sẽ cho nụ mà sẽ cho nụ mà sẽ cho ngốc yêu đêm mau ta đi dơ bay mà sẽ cho nụ mà sẽ cho nụ mà sẽ cho ngốc yêu đêm mau ta đi dơ bay mà sẽ cho nụ mà sẽ chờ Masa Masajono yude mau kadijabai Masajono Masajono mbokk xarit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu fi leen daan al khamis di jot ci waxtu wi ci seen rajo bi di sunu kër fm

Euh, ñu leen sant bu baax a baax di leen gërëm euh, di rafetlu bu baax topp bi ngeen ñu topp ak bàyyi xel bi tonte léeg-léeg heure yi xaw a changé tuuti waaye lépp euh, jàpp nañ ni Sénégal moo ko jar bi ñu toogee fii di wax ngeen toog di ñu déglu du caagin dañ leen a gën a xam wala dañ leen a gën a mën a wax déedéet dafa fekk ni initiative la boo xam ni rek ku mu neex te am loo wax lu jëmee réew mi kanam mën nga koo jël li ci am solo rek mooy euh, li ñuy wax buñ ko waxee ba noppi ñu jële ci njariñ loolu moo ci am solo wax joomul njariñ nag yàlla nañu ci yàlla musal ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ñu saa yu ñu demee ba nara wax lu amul njariñ euh, yàlla nañ jàll ci leneen def leneen loolu moom ñu leen koy ñaan bu baax a baax euh, kon nag euh, seen chronique bi tey euh, ci li muy jëm rek mooy ginnaaw bi nga xamee ni nag wax dëgg yàlla kon baalu nañ leen àq yéen ñëpp baal leen ci bis bu mag bi ñu weesu ci julli di célébré ko dans le monde entier muy tabaski ñu gën ko xam ci tabaski ci suñu réew te muy raydul adha wala la fête du mouton ci ni ko tubaab di waxee ñu profité ci occasion bi di leen jégglu bu baax a baax di leen baalu ak si di leen baal euh, lépp lu ñu leen def wala ñu wax leen ko te waxuwul wala defuwul ñu leen koy jégglu bu baax a baax euh, ñun topp ñu kenn dara lu ñu waaye wax wala lu ñu waay def jéggal nañ ko ko ci xol bu sedd guy yàlla yàlla boole ñu jéggal te yàlla gën a sotti Euh, bennoo ci Sénégal sotti ko ci sénégalais yi sénégalais bu nekk foo man nekk ci àdduna bi ñu lay fekk foofa di la jox loxo di la ñaanal yàlla jàmm di ñaan li ngay wut sa réew mooma bu dee ci biti Sénégal wala ci biir Sénégal yal na la ko yàlla jox euh, te bàyyi la fii ba nga muurloo ko seen chronique tey nag mbokk yi ci li jëm rek mooy appel bi nga xam ni njiitu réew mi def na ko te jëmale ko ci ku jëkk politique gi muy appel boo xam ni mu ngi jëm ci li ñuy tuddee li mu tuddee moom dialogue dialogue nag baatu tubaab la moo xam ni boo ko tasee dangay gis ni contraire am mooy monologue maanaam yow mu toog di wax yow kese wala ngay wax ak sa bopp wala amoo kenn koo waxal loolu mooy monologue dialogue mooy ubbeeku wax ak koo xam ni dafa jàkkaarloog yow xëy na te bokku leen ay xalaat bokku leen gis-gis loolu mooy dialogue waaye dialogue au sens premier du terme ñaari parti ñoo koy def wala ñaari nit bokk ñoo koy def ndax buñ nee jaa mooy deux kon dialogue ñaara koy def euh, kon bu fekkee président dafa wax ni mu ngi tàllal loxo opposition bi ngir dialogue loolu xëy na euh, ku ko dégg danga koy war a mën a rafetlu te noonu si ñun nii tàmbalee ci ñun danañ ko rafetlu waaye du tee ñu fàttali nii loolu nga xam ni mooy dialogue woote woon nañ ko fi ay at ci ginnaaw amna sax bis buñ japon ba ni moy le la journée du dialogue national nga xamni bis boba président de la république toog euh ñu bari ci réew mi am fi am fi baat rawati na nak ku jë politique gi ku nekk ñew suba ba ngoon anaka gudde won na sax ku nekk toog wala ku nekk ñew président tok déglu la nga wax sa xalaat ci réew mi loola moom lañ tudde woon dialogue national waaye boobu ba tey gis nañu ni euh, maanaam waxtaan dafa gën a tumuranke ci réew mi xool nag moom lu lu doy waar la ndax bu fekkee waxtaan woowa ubbi waxtaan ci réew mi moo ko taxoon a jóg defe naa c'est parce que bañ ca jógee ba tey daanaka bu ñu xoolee dëgg-dëgg nag ku am seetlu di nga xam ni wax dëgg yàlla euh, waxtaan ci nit ñuy doxale réew mi moom amul ci réew mi bu ma nee waxtaan nag waxuma ñi ñi ñi yor réew mi di ko doxal rek euh, maanaam pouvoir bi ñoom ci seen biir ndax ñooñu j'espère que ñu ngi waxtaan ñoom ci seen biir waaye du waxtaan woowu lañu wax mooy bi nga xam ni dafay ubbiku sénégalais bu ci nekk ak foo mën a nekk ay position boo mën a nekk ñu laaj la sa xalaat ci doxalinu réew mi loolu Euh, day fekk si li nga xam ne moom la imam ratib Grand mosquée de dakar wax imam sam ci kanam président de la république wax ko ni ko ay nit soo leen bëggee defaral da ngeen leen di laaj lu ñu bëgg waaw ay nit mënoo ni dama leen di defaral ba noppi te laaju leen dañu bëgg loolu mënul ne wala boog la nga leen defar mooy yow la nga jàpp ni moom la ñu bëgg wala la nga foog ni moom la ñu bëgg te loolu mën naa bañ a dëppoo ak la bëgg dëgg-dëgg ndax coow su cu baree cim réew rek eh, dafa fekk ni xëy na ña ko jiite am na nu ñuy doxale te jubuwul walla neexul ñenn ci réew mi kon nag mënta ñàkk xëy na waaye bu demee ba toll fenn fi dafay jar ñu def taxaw seetlu bu baax a baax kon dialogue boobu nga xam ne président de la république woote na ko man dama jàpp ni sax réew mi soxlawul dialogue c'est au-delà de ça lañ soxla ni ñu tuddee dialogue man pour man concertation la war a doon réew mi dafa ñàkk concertation te concertation dafa jéggi rek euh, ñi nekk ci pouvoir bi ak ñi nekk ci kujje politique gi daf leen di jéggi ndax dialogue boo ko boo ko jëlee mën nga ni parti bii ci ñi ci pouvoir bi ñooy jàkkaarloo ñi ci opposition bi di di dialoguer di waxtaan te loolu sax amul pour commencer kon jalo kon mbir mi waxtaan wi ni ñu tuddee waxtaan waruñu koo yemale rek ci diggante ñi nga xam ne ñooy xëccoo réew mi ndax am na ñoo xam ne xëccoowuñu réew mi waaye ñooy réew mi ndax luy dox ci réew mi ay la yëwen ñoom ñoo koy doxal te doo leen dégg fenn du ñu laaj dara saa yu saa ñu xëyee dem ci seen liggéey wàcc ñëw dugg seen kër toog ci seenu njaboot ñooñu nag damay faral di wax ne ñooy sénégal

Euh, diggante pouvoir bi ak opposition bi fan yi maa ngi wax sama sortie naan amul sujet boo xam ne ñu ngi échanger <laughs> ba sama benn xarit sax euh, rappeur la bu a ci euh, commenté si si ñu ngi échanger waaye ñu ngi coups <laughs> Euh, pour te dire manam fi nga xamni fofu la réew mi toll te mu melni dafa tagati mbi dafa can waaw ndax ñi nga xamni dañuy eh, doxal ñom lañu denk dénk yi te ñu japp ni réew mi ñoom niñ ko wara a doxale ñu koy doxale non buñ demee ba xalaat ni war nañoo talal loxo opposition bi wala ñeneen ñu bokkul ci ñoom cela veut dire que am na lu lu xew ndax bu fekkoon lépp a ngi dox bu fekkoon lépp ngi jaar ci yoon kon ragal naa ni loolu du leen ci fekk parce que bu boobaa ñoom dinañ continuer di def li ñuy def te bu boobaa it population bi dina kontaan ci li ñuy jëf waaye loolu loolu moo ci amul. ma jàpp ni nag euh, dialogue boobu nga xam ne li président tudde dialogue te man ma jàpp ni concertation la euh, li war a jiitu mooy am na yu fi jaar yoo xam ni. Euh,

je pense que c'est les élections les plus catastrophiques de notre histoire man non, là. ko une majorité s'est dégagée mais dans les Gisni, 49 75 des sièges à l'Assemblée nationale c'est qu'il y a un problème Loro, parce que c'est le mode de scrutin en tant que tel ce que je veux euh, c'est que problème un problème, noonu ko

leneen li nga xam ni moom lañ waroon attaqué bi nga xamee ni élection yi jàll na mooy ki nga xam ni moom lañ dénkoon élection yi ñu jële ko fii loolu préalable la ci ci ci li ñu tudde dialogue ndax dialogue nag bu ko président waxee moom dialogue politique la ci jublu kon il faut poser des actes politiques forts yoo xam ne dina tax ñi ngay woo ci dialogue ñu sawar a ñëw wala ñu bañ a ñu bañ a soupçonner ni piège la bu leen tendre wala c'est purement politicien élection euh, ci réew mi élection yu fi mën di amati tout nek ci loxo yi koo xam il fait partie d'un pouvoir ou de l'opposition Madame, c'est quelqu'un moo xam ne da dafa war a euh, am ci politique ci Voilà même wala même su fekkee ka koy diriger un am qui ci wàllu politique ñu def def ko structure boo xam c'est une structure indépendante du ministère indépendante de tout ministère Lolo moy tax apaiser la tension politique en tout cas électorale dans notre pays Lolo aurait été un acte fort un acte fort président rek poser remaniement mais dès dès la publication des résultats wala quelques jours après mu jël euh, euh, initiative boobu wala mu woo euh, ku jégi ci concertation bu mel noonu ngir mettre en place structure indépendante boo xam ni mooy saytu élection yi désormais dans notre pays loolu amul loolu ñu bari ñu ko doon xaar mais amul dafa mel ni bi élection yi jàllee nguur gi président en tête dafa toog

mooy ñi nga xam ne dañ leen a jàpp tëj leen ci kaso bi te mu wóor ñépp ni li leen li leen tëjee c'est des raisons politiques donte seen dossier xëy na am na ci lu ci ne mais bu ma nee c'est des raisons politiques mooy bu fekkoon dañoo nekk ci nguur gi féete nguur gi ànd ak nguur gi wala gouvernement bi bokk ngeen baal ma terme boobu parce que terme nguur man man vraiment du li ma jàpp ni moom mooy gouvernement waaw kon ma bako ni kon gouvernement bi ni nga xam ne dañ leen a te bu fekkoon nekkuñu ci kujjeg politique yi kenn du leen japp wala su fekkoon amuñu ambition kenn du leen japp du ma cité parce que bu ma cité damay personnaliser te jaru waye ku nekk ci ñun xamna lima bëgg wax moy amna ño qui ñu ci bi te defuñu dara ci kasso bi mën nañ leena a génne seen mbir bu fekkee ño togn ñu teg leen ay daan bu togn ñu mën na nekk ñoo ne daw kon li apaiser tension moy nga nga nga génn ñooñu d'abord jox leen liberté provisoire wala mettre mettre leen sous contrôle judiciaire lool c'est des dispositifs yo xamni euh suñu arsenal judiciaire juridique prévoir na ko jël ni tek ko ci kasso bi ba noppi di set mbiram te bobu batay tey néewoo ko waw na ko te mbolo nek ci ginaawam am tamit ñu ce n'est pas de nature à apaiser les tensions dans le pays pire ce n'est pas de nature à promouvoir le dialogue ou la concertation Dans ce concertation dinañu dinañu ni a leneen lu que yi euh, la nangul dialogue national bi nga ci at yi weesu te man ci benn journée lañ ko def dialogué li ñu nee nañ dialogué nañu mais lolu bu leen faté ni euh boba euh le fils de l'ancien président de la république mu ngi woon ci kasso bi bi ñuy def dialogue bobu bañ ca jógee lañ def deal boo deal bi deal bo xamné ne ba tey kenn xamagul li ci ne wala sénégalais yu ci bëri bok xamuñu deal bi nu démé ci lañ def deal bi génne ko génne ko Sénégal génne ko kaso ba noppi génne ko Sénégal dem exilé ko Qatar ba léegi ni mënatul a teg tànkam ci réew mi kon ñu bari ñi nga xam ne participer woon nañu ci dialogue booba ils se sont sentis vraiment abusés parce que dañu ni ñoom dañ leen a utiliser ci loo xam en réalité li doon objectif bi rek mooy libérer le fils de l'ancien président parce que pression bi peut-être euh, euh, pression bi doon na peut-être euh, président ñu bari doon nañ ko ñaan mu bàyyi euh, xale bi mënu ko bàyyi defu ko waaye bëggoon nañu benn benn porte boo xam ne benn prox boo ci libéré gracier ci niñ ko l'ancien euh, le fils de l'ancien président kon ndeke man nga ni journée boobu ñu woote lañ ci wax président lépp xëy na sax dégg ko waaw ndax moom am na leneen lu ko taxoon a jóg ana le leneen am na beneen plan bu mu laloon bu bokkut ak euh, instaurer ab dialogue ak concertation ci réew mi kon nag moo tax bi nga xamee ni dégg naa président woote ni dafa bëgg ñu euh, tàllal loxo mu tàllal loxo opposition bi comme ni nga ko waxee je comprends parfaitement ñi nga xam ne ils sont réticents amna ñoo xamni sax rejeté nañ déjà lolu ni mom il n'est pas question de discuter de quoi que ce soit avec le président lolu nak je pense que c'est pas euh, une attitude responsable parce que nit ki su fekkee dafa wax wala mu talal la loxo neel defal tek d'abord ba xam fu mu jëm bo xamé fu mu jëm nak nga top ko ca wala nga ñak ko ca top waye nit du ni la kay na waxtaan rek nga ko waxtaanu te xamoo sax lam lay doyee kon mm, li ma mujj wax moom day indi beneen préalable muy ana dialogue bi ak concertation bi ci yan thème lay tourner anam lu ana lu ñuy waxtaane ndax dañuy waxtaane euh, processus électoral bi ndax dañuy waxtaane euh, élection 2019 yi ndax dañuy waxtaane euh, de manière générale le fonctionnement du pays les les enjeux les grands sujets est-ce que l'on la ma joxe ci nak sama xalaat man euh bu fekkee ni dañoo bëgg ci lu jëmale réew mi kanam waruñu koo tënk ci lu lu aju ci élection wala lu aju ci ci protocole électoral wala yu parce que c'est un temps c'est un moment démocratique ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie du pays pour mon concertation il war a concerner projet yi nga xamni président président euh, initié nako té opposition bi am ci xalat té mënu ko wax bob batay pour man euh, concertation il fa wara jëm ci la gestion des ressources naturelles des ressources minières yi nga xamni ni fan yi doon nañ ci wax waye kenn waxatu ci fi ne wala ku ci wax kenn dégluwu parce que nit ñi am nañ peut-être leneen lu leen gëna ñor loolu c'est un sujet c'est ce sont des sujets fondamentaux yo xamni ni képp kuy woote dialogue wala ngay woote concertation ci réew mi te réew mi tax laa jóg mënoo koo éviter mënoo éviter yooyu sujet sujet yu mel ni suñu pétrole bi sujet yu mel ni suñu gaz bi sujet yu mel ni zircon bi sujet yu mel ni yeneen ak yeneen or bi yooyu yépp c'est des sujets yoo xam ni ça ne doit pas être tabou dans un pays démocratique surtout dans un pays bo xamni lima lim yep découverte yu ci ëpp biñ ko defee yagul nga xamni lu bess la ci réew mi dañ ci wara waxtaan pour man dégg naa ñu bëri di wax ni sénégalais yi dañuy coow ci ci ci pétrole bi te pétrole bi génnagul di ci wax ñii di wax lu ñu xamul et tout ma ne leen même suñu suñu fekkee am na ci ñoo xam ne dañuy wax lu ñu xamul wax ji daf ci am solo wax ji ci boppam daf ci am solo Nous tax ñu xam ni kat nañ ko daan doxale ak ak ak nañu xew techniquement xamuñu euh, nan la mbir mi doxe ndax mbir mi nañu ko joxe nañ ko cédé ak ak yooyu yëpp daanaka ci Sénégalais publier mais Sénégalais euh, ils n'ont pas une bonne compréhension de ces contrats là te aussi c'est des contrats yoo xam yu ci c'est des contrats biaisé yoo xam ni on n'a pas tout tous les éléments kon loolu yëpp dafay dafay entretenir ben ben ben flou boo xam ni euh, li doon tax mu wàññiku mooy ñu woté aw waxtan waxtan wi nak du na woté ben bis nit ñi tok ku nekk wax sa xalaat dem déedéet concertation pour man ça doit être permanent dans un pays concertation dafa war a nekk lu lu lu lu sax cim rew ndax bu ñàkkee ci réew mooy tax lii ñu gis muy euh, euh, ñàkk ñàkk waxtaan ñàkk wóolonte ñàkk jubóo sur quoi que ce soit loolu li koy indi mooy ñàkk concertation ci réew ndax bu fekkee pouvoir bi wóoluwul opposition bi ci dara opposition wóolul pouvoir bi ci dara sénégalais yi wóoluwuñu politiciens yi ci dara kon bu wóolu wóoloo diku yooyu bu baree mooy waral li ñu bëgg ci réew mi ngir mu dox du mën a nekk wala dina jafe kon concertation mbokk yi laa wax man man waxuma dialogue boo xam ni opposition pouvoir la concertation ñu teg ci table ji sujet yi nga xam ni mooy préoccupé sénégalais yi xam nañ ko li préoccupé sénégalais yi bokk na ci liggéeyu ndaw ñi bokk na ci santé bokk na ci éducation bokk na ci ni ma ko waxoon sànq les ressources minières yi ñu découvrir ci réew mi bokk na ci aussi le fonctionnement de notre justice une justice indépendante juromi sujet yi déjà buñ ko tàmbali won ne kat dañ ci bëgg def ay assises xaw ñu ko tuddee defoon nañ fi les assises de l'éducation fan yële at yee ñu génn ba tey xamu xamuñu fu fu fu conclusion yi mujj ak lan lañ ci jëlee.

lolu aussi euh, c'est une démarche politicienne boo xamni dafa wara jeex à un moment donné dans un pays parce que am réew nag dëkk ci campagne électorale permanente buñ jógee ci élection ñu ngay yóotu yenen élection yi diggante bi duñ def dara ku yëkëti acte bo posé politicien bu posé acte c'est un acte politicien lolu lolu mbokk yi dafa wara jeex ci rew mi wala bu jeexul it mu wàññeeku parce que nit ñi itam euh, man nañu lay seetaan di la gis ngay dégg ngay wax ak def waye bu foog ni dañoo def déedéet dafa di léeg-léeg dañuy am résignation bu len dikkal wala ñu japp ni li sax mënuñu ko fajj wala de toute façon politiciens ñom ñepp yam lool rek lay indi ci seen esprit té loolu c'est pas bon pour un pour un pays pour une démocratie bu démé ba population bi amatul ben confiance sur la parole publique bu euh mbokk yi c'est la catastrophe waaw ndax mën nañu lay xool di la seetaan ngay def di def ba tàbb ci kàmb te boo tàbbee ci kàmb tey njiit lu rëy ci réew mi wala am responsabilité yu mag ci réew mi mën ngaa dugalaale réew mi ci ci ci kàmb waaw ku mel ni président de la république euh, buñ ko bàyyee muy def lu ko neex entre guillemets ba dugal réew mi ci mais réew mi bu ko yëgandoo ndax moom il représente la nation c'est le père de la nation comme on dit il représente notre pays

bobu population do am patience do am patience te ñàkk patience qui ci am rew moy indi tension moy indi tension moy indi résignation moy indi violence Dans certains points de vue ndax fan yi euh, que maa ngi mangi pas sur ay sujets yo xamné c'est des sujets fondamentaux majeur yoo xam ni réew mi war nañ koo jëlaat waxtaane ko waaye au lieu de ça qu'est-ce qu'on constate dañoo gis ni réew comme ni ma ko waxee woon ci poste en un an nous sommes passés d'un débat crucial sur le pétrole à la question de savoir s'il faut ou non insulter mbokk ma ma ma c'est un sacré parcours parcours le bo xamni wax deug yalla war nañ ci sujet de fond le ñu ñeu sujet nga le sujet le plus le plus facile à traiter finalement parce que ndax avons saga saga saaga saga a saga, saaga euh, ku Sénégal wala sax nga xam tuuti ci Sénégal war nga xam ni la question est vite réglée ay saaga mënut soppi dara ci réew mi am na ñu ma dégg ñu naan réew mi euh, euh, gouvernement bi euh, saaga moo baax ci ñoom ndax biñu leen commencé saaga lañ commencé bouger mais ils ont bougé ils ont fait quoi nañ ma wax nañ ma wax depuis ñu commencé saaga ana lan lañ fi def lo xamni saga ye tax ñu def ko acca ma nga déglu képp ku ne ma ñoo fi def nangam ndax saga ye ñu tax ñu def ko rek man je suis prêt à t'écouter nga wax ma lan la rien manam ki nga xamni ni moron doon saga mom lañu jël yóbbu sénégal ñu ni duñ ko top dara loolu mooy def bi ah loolu lañ tuddee loolu lañ tuddee euh, def def ci gouvernement Vous faites que lañu tuddee def def ci gouvernement alors que le gouvernement est attendu sur plusieurs chantiers sur plusieurs sujets de fond sur plusieurs dossiers je trouve qu'on a quand même une une une conception une perception très biaisée de la réalité Vous faites que Kiron Saga mon MoDem dem Sénégal nous ni ko duñ la top. le le gouvernement a def loolu loolu mooy évolution du gouvernement bi am mais lolu aussi ça ne concerne qu'une seule personne mbokk yi mbokk yi nañ ubbi bët yi ñu xool bàyyi gi ñu ça ne concerne que cette personne en réalité waaw man lolu sama gëm-gëm la ndax ku jogat di saga ñaar la ci fekk soit ñu bala bañ la def dara wala ñu jàpp la tej est-ce que lolu ça nous ça nous avance est-ce que lolu ça nous avance mbokk yi kon dañuy sa war a saaga war a waruñoo saaga moom loolu moom je pense que c'est pas un débat li tax nag débat boobu juddu mooy en fait on fuit les vrais débats on les évite te ñi nga xam ni ñoo ñoo naru la lijjanti problème yi sénégalais yi loolu daf leen arrangé parce que bu ñu nekkee ci des faux débats di ci débattre donte ay saaga la donte ñoom lañ ko jëmale

l'essentiel boobu mooy li nga xam ni moo mën a soppi réew mi réew mi ay waxe kese du ko soppi ay saaga du ko soppi ay ay euh, waxantelu ñaaw du ko soppi xeex ci ci ci suñu biir du ko soppi li koy soppi mooy ana ñu taxaw ni ana lan mooy suñu problème ana lan mooy suñu problème bu ñu xamee lan mooy suñu problème bu fekkee ni ñun ci suñ bopp ci problème bi lañ problème. loolu aussi dañ ko war accepter parce que parce que nag am réew ña koy certes am nañ responsabilité mais nous, ñuy aussi am na comportement bu ñu pour éviter de faire partie du problème parce que man bu ma xoolee mbir mi xool ko en fait on fait partie du problème nous notre manière de fonctionner notre manière de vivre notre mentalité ni ñuy concevoir le monde la vie motax ñun on fait partie du problème bu fekkee ne nag on fait partie du problème loolu dañ ko war a xam aussi bàyyiwaale ko xel ci acte yi ñuy posé ndax ñi nga xam ne dañ leen a fal ni leen doxal leen ñi nga xam ne ñii gëmuñu yàlla wala ragaluluñu yàlla wala seetuñu ci lu bari ñooñu li leen intéressé mooy peuple bi bañ a xam li ñuy def bañ cee yitteewoo bañ ko sujet de fond bu ñëw ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko falam ko ak benen sujet bo xamni ça n'a aucun fond ça ne nous amène à rien Là aussi des contre-feux yoo les spécialistes de la communication xam nañ ko mu melni ngeen baal ben ben benn xaj rek bo xamni da fay tëb di dal di tëb di dal ñu sànni ko benn yahu yahu yahu yàpp yax yax goo ne amul sax yàpp amul dara yax un os mu di ci ngeur ngeur di ci ngeur ngeur ba sonu

attaquer les vrais sujets parce que il faut d'abord nous régler le problème le problème problème de de fond madame lan est l'essentiel dans notre pays il faut nous régler déjà question Le lan nous, peut-être mais je pense que nous partie du problème te tant que xamuñu loolu nanguwuñu loolu le problème ne sera pas résolu mbokk yi ñi nga xam ne ngeen a c'est des sénégalais ils sont issus des rangs des sénégalais ay sénégalais pur sang lañu fi lañ juddoo fi lañ màggee fi lañ ñeroo ñu ci bari fii lañu jàngee ñi jàngi bitim réew dañoo jàng sax ñëwaat kon ñooña bitim réew euh, soppiwu leen wala sax bu man sax bu fekkoon biti de la soppi ci soppi soppiwunu bu baax sax parce que am na réew yoo xam ne du duñu Sénégal mais nañuy doxee on rêve de ça dans notre pays la gestion des affaires publiques la gestion des deniers publics on rêve de ça alors que ñooñu duñuy du duñuy sénégalais mais nit ñi su fekkee dañuy dañoo génn sax Sénégal ñëw indi jikko yu rafet ak doxalin wu rafet loolu sax dinañ ko nangu mais mbokk yi ñi fi nekk ay sénégalais nañu comme ñun est-ce que nag dafa am le euh, lu lu lu luy soppeeku ci yow bu fekkee da ngaa jóge ci sénégalais ordinaire entre guillemets dem ci nekk un représentant de de du peuple est-ce que loolu dafay am lu mu soppi ci ci mentalité nit ki sénégalais bi est-ce que dafay am lu mu soppi ci jikkoom est-ce que la may dafay am lu mu soppi ci moralam loolu su fekkee moo am mbokk yi on n'est pas sorti de l'auberge parce que ce fait qu'ils soo franchir la porte du pouvoir tu tu deviens quelqu'un d'autre mais lolo, même si nga xam ne ñu ngi ngar-ngar yi fi mu le ngir jox pouvoir bi kenn du leen ba jox pouvoir ndax dañu naa leen yéen kat yéen a ngi wax waaye bu ngeen demee fee nañee def donc ngeen def. le problème c'est nous c'est nous notre relation avec le pouvoir. Notre relation avec l'action publique, notre relation avec la gestion publique, avec la gestion des deniers publics, notre relation avec le comportement qu'il convient d'avoir quand on est investi d'une mission de service public. Mbokyi, balama goudel ma yam ndax wax pour récapituler dindu si ci thème central bi mooy pour man dialogue national bii nga xam ni président de la république woote na ko mel ni dafa tàllal loxo opposition bi pour man wartu nekk dialogue concertation la war a nekk boo xam ni ça ne doit pas concerner uniquement les acteurs politiques waaw y a des acteurs de diverses natures oo xam ni euh, am nañu cër ci réew mi am na luñ ci mën a taxawee am na luñ ci mën a wax ñooñu aussi dañ ci war a bokk waaye li préalable bi mooy euh, wax naa ko euh, yu bari fi jaar ñu ñu ñu ñu waxtaane ko euh, ba indi ci ay solution ñi nga xam ne ñu ci kaso bi te mën a génn ñu soog ñu seet seeni mbir ñooñu ñu génn leen ngir apaiser un petit peu la tension dans dans dans ce pays parce que tension bi lu mu gën di yéeg Sénégal moo ciy perdre

di Dick dig Al Bidi bi di ñew ci FM la première radio africaine de Los Angeles mama khadija bay masajono masajono masajono mama khadija bay masajono masajono masajono nagutang bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay di yaakaar sa borom yow soo ko yëg naaj sa jubal sa palaas ba yow soo ko bi bu tàng bi yaa ngi yëngu sa di yaakaar sa borom yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yëngu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiiti mamni woro no siman sonyi we mane basma mamni woro no siman sonyi we mane basma bilai matsa jo segala segala segala mà sẽ chờ nó yêu đêm mau cả đi giờ bay mà sẽ chờ nó mà sẽ chờ nó mà sẽ chờ nó yêu đêm mau cả đi giờ bay mà sẽ chờ nó masa masajono masajono yo de mau ka di jabain masajono masajono masajono yo de mau ka di jabain masajono masajono masajono yo de mau ka di jabain masajono masajono Masa jono yude mau kani jabai Masa jono Masa jono